président de la république euh, son excellence Mathieu Salmo a décidé de euh, la pandémie bi commencé euh, fédération bi ak acteurs yi ñu nous également ñu pour diminuer les lan la ñu a un pour problème loyer problème salaire ak avons moom 1 milliard de dollars, ñu avons fait def distribution mais avant de faire def nag dañu installé une commission pour l'éducation nationale ak acteurs nous ñoo fait def calcul ser ñaata élèves les am ñaata enseignants lañu am et cetera pour déterminer benn clé et clé boobu moo taxoon ñu def première distribution bi léegi encore ñu encore 2 milliards ou 3 milliards léegi commission boobu encore toog na tey nag mun nañu wax ne ñu de 600 et quelques millions mille 8 millions donc loolu mooy li école bu a 674 am 8 millions remise bi di rek euh, le fait que acteurs yi parents d'élèves ñëw nañu bon école privée que soit privé confessionnel ou non euh, les associations de consommateurs ak ministère donc